jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM 97 point 5 Euh, ñu leen di nuyu bu baax di leen di jaajëfal di rafetlu seen ànd ak euh, ñun Abdou Khadre moo nekk ci micro bi du Diaw jàll moo nekk ci wàllu euh, xarala gi mbokk yi samedi bu jot ci waxtu wi ñu ànd ak yéen seen émission pencum réew mi tey nag ñu daal di invité Hamidou Wane moom nag mu bokk ci cadre yi nekk ci parti bii di PDS nekk membre ci comité directeur PDS moom la ñu fas yéene waxtaanal tey ñuy jégalu nag bu baax a baax ci minutes yi nga xam ne moom moo jot daal di dem embouteillage yi nga xam ne moo nekk ci. ci biir ndakaaru bokk na si li ko waral euh, euh, Amidou woon ñoo ngi lay euh, nuyu bu baax di rafetlu sa teewaay. sëñ Abdou Khadre maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant la gërëm si invitation bi di leen ziar. Mhm. di ndokkeel waa réew mi FM parce que bi yoon mooy sama gulet en fait bi yoon mooy la première fois bi nga xam ni. Mhm. mus naa ñëw si seen groupe. Mhm. bi yoon laa mus ñëw nii seen groupe bi. donc. di leen di leen ci gërëm daal si invitation bi. Mm-hmm. permettre ma wala mu nekk euh, mu nar ma ma nar ci profito pour waxtaan ak sénégalais yi. Mm-hmm. si li fi kii si réew mi daal. maanaam ci réew mi ak. Euh, mm-hmm. nu ñu gérer réew mi. jaajëf Hamidou euh, Wane comme ni ma ko waxee sànq yow nga bokk ci parti bi di PDS. fi ñu koy njëkkee mooy démb gis nañ seen benn communiqué boo xamante ni euh, génne ngeen ko pour dooraat li nga xamante ni tey mooy seen i activité euh, ci lu jëm ci wàllum euh, politique ndax mën nga dikkaat ci comme commencé waat ngeen seen activité politique ginnaaw bi ngeen ko dakkalee ngir coronavirus bi lan ngeen xalaat def. waaw moom xam nga communiqué moom buñ ko defee dañ ci dañ ci xàll. Uh-huh. bañ ci c'est bon. c'est bon oui. communiqué buñ ko defee dañ ci xal yoon. Mm-hmm. yoon bi nga xam ni moom ci ndigal secrétaire général national bi mooy maître Abdoulaye Wade. Mm-hmm. lu ñu war def fu ñu koy defee ak nu ñu koy defee. Mm-hmm. ci communiqué bi. en fait loolu la ñuy wax grande ligne. si si kii si grande ligne yi wala maanaam si si nu muy xàllee yoon bi. daf koy xalli si grande ligne yi woon ñu daal nee lu koy détails yi nag nu ñu koy defee kooku responsable bu nekk si gox bi nga nekk yaa xam nooy toje sa bopp jinax waaye moom day xalli kii bi rek lii am moyen que dañu amoon dañu commencé woon def liggéey bii nga xam ni mooy placement de carte yi en perspective des élections locales mais bi ñu koy jéem di def à l'époque diggante bi bi ko président jëlee ñu commencé ni ko def diggante bi lii xew-xew mhm. mooy feebar bi ñëw mbas mi mhm. coronavirus bi bi coronavirus bi ñëwee mu jël communiqué ne nañu arrêté bopp activité politique ndax mm-hmm. lii dal réew mi lii de dal suñu kaw euh, dafa di loo xam ni war nañ ko mun dimb bu ñu war ñu ko mun war ñu mun nekk si yenn activité yoo xam ni dina dimbale feebar bi ba feebar bi di gën a law mm-hmm. donc nag pour être pour se conformer au directive des autorités sanitaires nañu arrêté lépp nañu bàyyi lépp teg lépp si suuf mm-hmm. d'autant plus encore moom maa boo amoon na benn confinement partiel amoon na lu ñuy wax aussi loi d'habilitation bu ñu joxoon président de la république Macky Sall donc loolu yëpp mu ànde loolu yëpp c'était pour xeex coronavirus bi donc ñu woon si condition yooyu tamit di continuer activité politique. mais lan ngeen def yéen ci coronavirus bi gis nañ fi ay parti politique ay euh, ñoo xamante ni tey euh, ay bonne volonté jóg nañ dugal ci seen alal ñi def ay sensibilisation ñi joxe ay masques yéen waa PDS. ah waaw ñun waa PDS waa aussi lu ñuy def mooy de manière. Euh, individuel ou collectif am na ñoo xam ni ku nekk si ñun am na ñoo xam ni si gox bi nga nekk def def nañ fay activité nous connaissons certains de nos maires seen activité seen gox yi ñu nekk def nañu ay activité au nom du PDS au nom di PDS au nom de leur euh, de leur mairie yu ñu kii mais nag bi ñu koy def aussi si tour PDS lañ leen éliroon. Ah. waaw mais dañ fay gis benn euh, force euh, benn force Covid 19 bu ñu fi lancé ñu bare bari dugal ci seen alal est-ce que PDS génn ngeen xaalis tey dugal si euh, comme ni nga xam ne dax journalistes yi joxe nañ homme d'affaires joxe. waaw mais mais Karim Wade ce qu'il a fait c'est beaucoup plus yaakaar nañu ñëpp gis nañu nombre de kits de kii test yu ñuy def yu ñuy kii yu mu fi maye c'est c'est une valeur de plus de presque deux cent deux trois cent et quelques loolu kay keroog lañ ko joxee ji fële ministère de la santé. loolu kay moo ëpp lépp lu kii c' est presque une valeur de trois cent et quelques millions Karim Wade l'a fait en plus de plus de huit mille kits de trucs de euh, de, tests rapides yoo xam ni de la dernière génération et de meilleure qualité ñi nga xam ni qui ont été certifiés dans le monde comme étant les meilleurs kits de tests loolu il en a donné ici c' est plus une valeur de presque trois cent et quelques millions donc euh, loolu rek yaakaar naa sax loolu en dehors maintenant comme je l'ai dit des des des des des des kii euh, des militants du PDS ñi nga xam ni si PDS la ñu bokk ku nekk si ñoom si gox bi nga nekk ak circonstances yi nga xam ni mën nga ci liggéey ci biir gox ci biir euh, xeex euh, mbas mi ñu xam ni ñu ngi impliqué wu di ko def léeg-léeg ñu def ko sax samp def ko autour du PDS def ko si seen tour parce que dañuy nekk dañuy nekk dañuy bokk si wenn gox gox bi ñuy bokk feebar bi c'est des citoyens comme tout le monde ils peuvent avec des gens de la paire avec des gens de avec ñoo xam ne dañu nekk ci opposition ak ñeneen ñu nekk ci kii ñu bokk ci man Yoff laa dëkk par exemple si euh, on a fait des activités yoo xam ni amul bar xamu xamuñu benn couleur politique loolu dañuy xeex pour kii la donc lu mel noonu day am quoi. d'accord euh, Amidou euh, Wane euh, tey ci rajo bi fii dañ fi invité woon Babacar Gueye mi nga xam ne ay jamono mooy mooy yoroon kàdduk PDS ñu laaj ko ñoom dañoo taxawal seen parti suqali suqali PDS moom nee na dañoo dem ñoom ba sentir que ne Abdoulaye Wade bëggatu leen ci PDS moo dem ñu taxaw moo tax ñu taxawal ñoom seen seen seen kuréelu bopp ndax jàpp nga ne dem bi ñooñu génn ci PDS gënuta néewal néewal doole euh, PDS. bon bon xam nga xam nga parti politique euh, Abdou xam nga parti ak train maanaam train train autorail buy daw benn lañu rek day am ay gaar day am ñu wàcc am ñu yëg ba train bi egg mais wàcc ak yëg bi du tere train bi bu mu jógee fële bi mu jógee bu jógee Dakar di dem Kidira du ko tere yegg dina am passager yu ci wàññeeku dina am passager yi ci yokk yi ci yokk ak yu ci wàññeeku bu ñu demee ba egg rek ba egg gaar ba lañuy ñu mun compter pour xam ni ñaata ñoo wàññeeku woon ñaata ñoo yëg diggante bi loolu la ñu mun loolu la ñu mun wax alors que parti politique c'est un peu que la même chose parti politique day am dafa am dund dafa bëri comme nit la day am bakkan day dund day day day kii doolam day wàññeeku doolam day yokk li ñu mun wax mooy ñi nga tudd fii léegi mooy mes amis mes ex-frères de du parti démocratique seen ñoom Babacar ou bien Omar Sarr waaw que ñun ñoo bokkoon ñoo àndoon dem nañu ba un moment sentirtuñu wala yaakaar nañu ñoom nii di Abdoulaye Wade doxe wala nii di PDS doxe gënalu leen am nañu beneen pexe wala beneen beneen yoon wala beneen façon doxlin bu ñu mun def ñu ne nag comme doxlin boobu dox kiwantul ak ñoom ñu commencé andi yeneen tànk ne ñoom ou bien ñu doxalee ni ñu buggee ak ni ñu buggee doxalee nag ñun bugg ñu doxalee noonu parce que ñëpp jàpp nañu ni ñu buggee doxalee mun na am am na leneen noonu lu ci rax loo xam ni moom la ñu bëgg moo tax ñu bugg ko doxalee noon ñun ñu ne noonu doxalin boobu dayu ñun ñun doxalin bii nekk bàyyi la ñu suñu doxalin ku ci mun ànd ànd ci ku ci mënul ànd kii donc ñoom ñu ne dañuy jëm dañuy génn. d'accord génn nañu dem nañu. Mhm. ko waaw may ma moo jëlee rek génn nañu créé nañu seen parti yàlla na yàlla dimbali. dimbale ñi nga xam ne tamit ñoo des ci PDS. mais Amidou li ma ci xam rek mooy mais Amidou woon euh, yow ak ñu bari ci wàllum politique dañuy faral di joxe explication comme quoi que euh, parti politique terrain la boo xamante ni ñii dañuy yéeg ñii wàcc mais ci politique dafa am ay kàngam maanaam dayo yi tolloowuñu euh, am dañu ëppante base politique. Euh, lu jëm ci wàllum wax Sénégal yi dégg leen wax Sénégal yi lu leen convaincre loolu lépp nit ñi dañu ëppante expérience ci loolu ëppante dayo ci loolu tey am na ay kàngam yoo xamante ni tey ñoo jóge biir PDS ñooñu euh, mënut a ñàkk mu feeñ ci ci PDS ndax tey gis nga PDS opposition buñ koy tudd sax ay parti réew mi ngay dégg ak ay Ousmane Sonko mais PDS presque euh, ni mu meloon bu njëkk ñu bari sentirutuñ lu mel noonu. waaw waaw xam nga man. Euh, dog nga ma mais c'est bon parce que li nga def ni li question bi nga posé danga nga yokkaat rek question bi mais si si même lancé bi laa nekkoon pour expliquer da nga ne par exemple maa ngi ne train bu train boo xam ne dañuy yëg dañuy ñii dañuy yëg dañuy wàcc waaye xam nga dama la ne la politique c'est une addition addition mooy yokk pas soustraction pas wàññi pas mooy mais plus la du loolu donc ñoom bu ñu wàññeeku si ñun du ñàkk mu am na mun na am mu am lu wàññeeku si ñun du ñàkk du ñàkk parce que bu doon Babacar Gaye la même bu doon Babacar Gaye bu ñu xam rek benn rek benn rek sans mu am dara mu am dara gannaawam sax mu nekkoon Babacar Gaye c'est une personne c'est une voix pour le PDS bu dee wàññeeku na mais nag est-ce que yow xam nga PDS konte nga ñaata Babacar Gaye ñu mel na moom même bu ñu amul baat ñu kii ñoo xam ni c'est de électeurs c'est des gens ñoo xam ni dañu bëgg Ablaye Wade dañu bëgg Karim Wade dañu bëgg PDS te ay xale lañu ndaw lañu ëllëg ñoom ñoo yore mi ñaata ñoo ci nekk loolu la ñuy wax les mouvements karimistes benn Babacar Baye bu dem nous avons au moins nous avons au moins chaque fois plus de mille xale yu ndaw yoo xam ni ay ndaw la ñu ñu mel na yow nekk seen digg doole ñu xam ni ñooy avenir nag parti parti boo gis loolu mooy xale ndaw mooy avenir am sax d'ailleurs ay baat yoo ay mun wax yoo amul importance ci Sénégal boo munee wax boo mun a mun wax sax changer réew comme on le dit les qui sont c'est pas avec les mots qu'on change un pays lu mun wax la ñuy changer pays li ñu mun changer pays mooy jëf liggéey ak jub jëf liggéey ak jub alors donc tant que ñi Babacar Gaye ñoo ñuy demee mun naa am na luy wàññeeku mais kenn si ñeen poseur question ñaata karimiste wala ñaata jeune wala ñaata ñeneen sympathisant di do Ablaye Wade ñoo xam ni dañuy jóg xëy entre adhéré ci PDS ñun xam nañu ñoo yore suñu cartographie ñoo yore suñu kii ñun ñoo yore suñu base de données on connaît. d'accord ça c'est beneen affaire bi mooy li ma ci bëgg yokk rek mooy euh, histoire lay convoquer rek je convoque l'histoire teg ma parler de Babacar Gaye tu m'as parlé de Omar Sarr. mais je Amadou Sall de Amadou Sall waaw samay samay grand la ñu samay grand la ñu samay xarit la ñu surtout maître c'est mon ami c'est mon truc quoi ah, euh, je le remercie et je le rends un hommage pour son amitié ou bien son affection vis-à-vis de moi tabaski korité bu nekk dina ma woo dafa man au moins trente ou quarante minutes téléphone bi moo ci passe je crois sax ça fait deux semaines trois sax woo la ma kii donc jiitalul lu ñu bokk wala lu ñu wala lu ñu lu ñu féewle jiitalu ko mu jiital sama diggante ak moom la alors euh, en 1900 euh, un avant 2000 le PDS a perdu benn yoon benn yoon 18 députés 18 cadres 18 18 leaders politiques dans différentes régions ñoom Abdoulaye dans différentes localités département de Dakar temps Abdou Diouf la woon li ma lay wax ni c'était avant 2000. dans les années 98 dans les années 97 95 entre 95 98 est-ce que tere na Ablaye Wade ak pouvoir ñooy ngay wax noonu. Mhm. ñooñu gënoon kàngame sax ñi ngay tudd tey. mais du PDS moo yóbbu Ablaye Wade du PDS la. du comme li nga xamante ni tey mooy ab coalition ñu baree bari bokk si ay Moustapha Niasse ñëpp ñoo bokk ñoo booloo fal Ablaye Wade 2000. Mhm. noonu la demee. waaw waaw ne loolu du woon PDS du woon parti PDS. xam nga xam nga ñi kii bu doon coalition kii. coalition coalition bu lay bu lay jiital. Mhm. ah bu lay jiital. coalition du la jiital si neen. coalition def lay jiital boo nekkee par chef d'une coalition da koy ne par rapport ak su poids. poids bu nga weer par rapport ak ñi nga àndal ñëpp. c'est-à-dire poids bi moo lay mooy déterminer kii bi parce que mun nañu tu peux pas avoir un truc tu avoir le poids du le poids de euh, le par exemple et réclamer la part d'un lion mun la am poids euh, ginaar nga ne par exemple mais bu ngeen di séddale da nga may séddale li ngeen sédd gaynde te yow amuloo doole gaynde donc bu Abdoulaye Wade bu ñu coalition boobu amee ba autour du président Abdoulaye Wade c'est parce que Abdoulaye Wade était le leader charismatique et le chef de l'opposition et le patron de l'opposition au le plus le parti politique le plus représentatif Moustapha ñoom Moustapha na topp ñu Abdoulaye Wade parce que daf leen neex topp ñu dañu topp Abdoulaye Wade parce que les réalités politiques du pays moo ko moo ko demandé woon Abdoulaye Wade moo nekk moo fi nekkoon moo fi mun moo fi ëpp kii bu moom day jàll bu ñu àndul ak moom peuple bi day ànd ak moom c'est ça la vérité. d'accord voilà donc je voudrais que loolu ku ñu kii ko donc loolu tax ma ne la ñoom dem nañu ñoom dem nañu avant ñoom avant ñoom sa Fara Ndiaye de Fara Ndiaye loolu xale nga woon de Fara Ndiaye ba ba 2000 ñaata nit ñaata doomi aadam ñoo ab Abdoulaye Wade ñoo génn si Abdoulaye Wade dem créer ji ay leneen wala dem sax ànd ak pouvoir mais même Ousmane Ngom bii def na ko Abdoulaye Wade 99 ou 98 rek def na ko Ablaye Wade ànd ak Abdou na ko egg pouvoir. d'accord jërëjëf euh, Amidou Wone euh, yow nga bokk ci cadre PDS yi nekk membre comité directeur yow la ñu invité tey euh, seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM. merci samedi bu jot 15h 16h ñu wax ci li nga xam ne mooy mbënd mi. ci uh, Sénégal lan moo ci sa xalaat ci mbënd meek Sénégal yi si am ay jafe-jafe ak plan Orsec bi président Macky Sall teg. Euh, mhm. mettit lu rek euh, li nga xam ni moom la ñuy dund situation bu métti la situation bu xam ni vraiment buggal ma ko Sénégalais yi buggal ma ko ñi nga xam ni ci lañuy mhm. dund mhm. Euh, lu lu tiis la et on sait aussi que c'est une situation récurrente boo xam ni depuis cent 1960 ba léegi mu ngi fi xam nañu tamit principaux responsables de cette situation c'était le premier pouvoir en place en 1960 mooy ñi fi njëkkoon nekk en 60 mooy ñoom donc situation bi yëpp ñoo ko créé ñoo ko créé mooy ñoo xooloon à l'époque xam na ñu lii c'est ce qu'on appelle des zones édi di édificandi zone yoo xam ni c'est des zones yoo xam ni ñuy ñuy taala kenn waru ci dëkk mais ñu bàyyi ay population dëkk ci même même temps Ablaye Wade aussi waaw waaw dafal nank non dama ne Ablaye Ablaye Wade Ablaye Wade a trouvé une situation de fe au contraire il a cherché à la combattre jéem na ko xeex mais dama ne ki créé situation bi moom avant PDS avant ab Macky Sall avant kii c'est le PS ñoom ñoo njëkk def yëpp ñoo seetaan situation bi egg ñëw ñi ñëw après Ablaye Wade quand il venu il a cherché au contraire mu à combattre ça je crois mu andi loolu mu andi plan Jaxaay c'est ça qui a qui l'avait inspiré pour créer le plan Jaxaay c'était de là le but de redimensionner de reloger des des des populations yi nekkoon ci biir ay ndox ku génne leen ci état nag continuité la quand on a fait quand il a fait son plan de relogement là son plan de relogement quand il a fait le plan de financement quand il a fait le plan de délocalisation bi Macky Sall ñëwee il a il a cherché lui à faire son un autre plan à lui alors que l'état c'est la continuité c'est le grand problème que nous avons dans nos pays danga dama dama lay da da nga may jiit da nga may jiitu nekkatuloo fi ma ñëw wutu la au lieu xool la continuité de l'État li nga xam ne moo arrangé réew mi mhm. te nga xam ni sa ça nous fait moins perdre moins d'argent mais non damay jéem diaboliser ki fa nekkoon li mu defoon même lu baaxoon sax ma ne kon lu baaxul comme ni nga defoon Abdou Diouf comme ni ngeen defoon PDS ñuy def PDS amul lu ñuy def dama ne ñun amul ñu def dara lu ñuy def PS le parti socialiste ce qu'ils ont fait s'ils ont fait des choses on les on reconnu li nga xam ni def nañ ko ci mais li am ba am muy am ba am le parti socialiste bi mu fi nekk amul loo xam ni ce qu'on appelle les instruments de contrôle amuloon presque la presse n'était pas aussi libre la citoyenneté n'était pas aussi développée l'esprit de citoyenneté n'était pas aussi développé donc ñooy bi ñu fi nekkee dañ doon def lu leen neex amul kenn ku leen mun. mais lan ngeen def yéen ci mbënd. inondation Sénégal mais c'est ce que je t'ai dit. Mhm. comme lan comme lan. comme lan ndax euh, li ñu gis. waaw euh, Amidou Wane. li ñu gis yéen bi ngeen fi nekkee. waaw. Euh, mën nañoo wax ne. fa nga xamante ni tey moo doon taa jamonoy Abdoulaye Wade am na ci sax foo xamante ni bi Macky Sall ñëwee foofa taawatul. loolu lañ fi gis tey fan ngeen mën a wax ne tey moo xam dakaar la moo xam yeneen gox yi. dama ne lan ngeen fa def ba Sénégal yi amuñu ay jafe-jafe ci mbënd. bu bu passé plan jaxaay bi. dama ne bu bu passé plan jaxaay li Sénégal li kii def li Abdoulaye Wade def si kii mbënd si mbënd si contre si lutte contre mbënd yi. Mhm. non loolu am la dama ne le plan jaxaay est en le système de le système d'évacuation avec les qui avec euh, ce qu'on appelle les blancs les les qui les, les, les qui de rétention les bassins de rétention c'est des faits. Mm -hmm. ça c'est pas c'est pas moi c'est pas moi c'est visible et réel. c'est une politique de Ablaye Wade. waaw mais amul système d'assainissement bu ñu mën a wax ci Dakar. système d'assainissement c'est ce que j'ai dit. non yéen. non yéen système d'assainissement. waaw c'est en effet sur les trois phases yu ñu kii yëpp Ablaye Wade autant qu'il a pu dans ce truc dans cette dans cette lutte si combat wala si xeex contre contre mbënd bi jéem nañu def nañu ci liñ ci mun def nañu kii def nañu la la relocalisation la délocalisation et la relocaliser ni yi délocaliser leen yóbbaat leen aussi si yeneen si yeneen si yeneen gox fexe aussi gox yooyu ñu financer ay kër pour def pour def leen ci pour essayer de le sortir de cette situation mettre en place une politique de, de, de mise en place des bassins de rétention lii nga xam ni la kii ces plans de financement yinga nga xam ni loolu yëpp ci kii c'est Abdoulaye Wade lui qui a mis ça en place moo ko xalaat moo ko def il a trouvé ici il l'a hérité mais bi mu ko hérité il a il a il a cherché à le euh, il a cherché bu fa na ko faj alors bu ko jéemee faj nag l'état c'est une continuité entre temps il a été démis du pouvoir s'il a été démis du pouvoir ceux qui sont là ils ceux qui sont venus dañuy waroon continuer ñoom tamit def continuité dans la lutte contre le truc ils ont cherché à faire un autre non ils ont fait ils ont cherché à faire ce qu'ils appellent leur plan décennal mais bu ñu gisee ne yéen bu ñu gisee ne plan bi ngeen tegoon mm. du plan boo xamante ni peut-être bu baax la ñoom bu leen neexee xool beneen plan amul lenn lu leen ko mën a tere waaw waaw mais mënuñu wax ni euh, ñoom mun mënuñu mënuñu wax ni plan boobu baaxul xam nga lu tax mhm. mënuñu wax plan boobu baaxul puisque gis nañu Macky Sall moo taxaw nee en quatre ans réglé naa mbëndi lu moo ko waxoon fi moo mhm. ne woon en quatre ans réglé na mbëndi fii la taxaw wax les réseaux sociaux yaa ngi ni mën nañ ko génnewaat film yi en quatre ans xeex na mbëndi barke démb la lu mu mujjaw la wax waaw xam nga mënuma mënuma mënuma euh, man mënuma arrêté taw bi d'accord man mënuma mënuma jàpp taw bi Uh-huh. léegi euh, xaalis bi président Macky Sall wax ne moom lañ taxawaloon euh, plus de sept cent cinquante milliards ngir mbënn mi gis nañ ne coow li bari na si euh, yéen waa PDS sax bëgg doon ngeen sàkk ñu déglu ministres yi nga xamante ni njort nañ ne laale nañ si ubbi si ab enquête parlementaire lan moo tax ngeen njortu ne xaalis boobu demul ci mbënn mi. waaw mais xam nga dama la ne j'ai un ami allemand qui avait l'habitude de dire ñett see ñoo yore réew. continuité euh, citoyenneté ak contrôle mhm. mu ne moom jàpp na ni ñett see réew bu ki nag réew bu nekk rek mhm. war na ko mun war na ko mun war na ko war na mun kii régime bu nekk rek war na mun doxee noonu wala doxalee noonu mhm. continuité mooy li ma wax rek boo amee ñu la jiitu nga ñëwaat jël si li kii xoolal lu baax si li mu def nga di nga bañ ci rëy wala nga bañ ci xool ngir bëgg yàq ngir par exemple pour euh, pour def sa tour wala pour def la la politique de ton de ton groupe ou bien ton régime nga bañ ko xool nga bañ jiital loolu nga nga ne par exemple lii de baax na lii baaxul nga ne lii moom baaxul boo defee noonu di nga yàqnal alal réew mi di nga yàqnal euh, coono réew mi di nga nal aussi temps bi si kii mais nag boo ñëwee ne par exemple ñi ma jiitu rek comme jiitu nañ ma xaaral comme bëgg naa ni ñu fàtte leen xaaral ma diaboliser ma utiliser presse bi leen yàq lépp lu ñu def fi pour wan rek l' essentiel mooy nañ leen fàtte pour ñu xam ni man maa parce que c' est ça le truc alors bu ñuy defee loolu mooy lu tax ma lay jox ma jaaree noonu di la expliquer lii yëpp mooy da ne est ce que def nañu 750 milliards yi ñu ngi laaj ñun. yéen da da ngeen a sàkk ñu ubbi si enquête waaw. waaw ñu ngi sàkk ñu ngi ci ubbi non si loolu laa ñëw ma tax ma man maa jaaree est-ce que def nañ ci 750 milliards c'est une question il y a certains qui disent dañu jaawale 750 milliards pour 75 milliards certainement 75 milliards la ñu jàppee 750 milliards wa ila bu dee def nañ ci 750 milliards impact impact mooy 750 milliards fu ñu ko def ci dara war na fa feeñ ñu xam ni dëgg-dëgg lii def nañ fi 750 milliards ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans la banlieue toute la banlieue le dit bu ngeen defee fi 750 ñun gis ñu ko dunduñu ko kii ñu ko li notre situation est pire qu'avant ñoom ñoo koy waxal seen bopp moo tax Macky Sall dem na fa dem na fa visite barke dem wala barkaat dem gis nañu condition yi mu fa defee visite il a il a voulu être distant du peuple moo doon def na doon def visite léeg pour ñu defal ko accueil populaire cette fois il a refusé parce qu'il sait il sait ce qu'il attend là-bas donc loolu tax il a refusé de faire aucune communion avec la population à distance avec son costume aussi ndax kuy dem si mbënd warul def costume déjà euh, la tenue n'est pas appropriée war nga def kii def sa bot def sa casquette def sa kii pour dem xool léeg-léeg nga dugg sax xool situation bi nu mu mel alors bi mu ne bu dee def nañu sept cent cinquante milliards ñu jàpp nañu gëmuñu sax sept cent cinquante milliards am na man loolu lu ma ma gëm la gëm ma ko mais bu dee loolu am na feeñul si résultat yi mu def au niveau de la banlieue si xeex ngënd bi beneen affaire bi mooy boo defee dara boo jëlee ak alal réew mi sañ nañ leen laaj alal bii nga xam ne def nga ci nan lañ ko nan nga ko ci defee noo ko noo ko utiliser noo ko fa dépenser nga auditer ko defal nit yi ce qu'on appelle un bilan loolu la PDS laaj au niveau de l'Assemblée nationale ñu bañ ñu ne duñ ko def lu tax PDS laaj leen ko. xam nañu Ablaye Wade on peut tout reprocher mën ngeen ko reprocher lu ne. léegi léegi bu ngeen ko laajee ñu bañ léegi lan ngeen xalaataat. loolu la bu ngeen wax ngeen assemblée nationale pour ñu déglu ministre yi wala ñu ubbi seen enquête parlementaire bu dee assemblée nationale lànk na loolu lan mooy nekkaat seen beneen taxawaay yéen waa PDS. waaw mais suñu taxawaay suñu suñu taxawaay mooy c'est c'est d'informer le peuple c'est d'être dans le combat pour le dire c'est xeex ak askan bi nekk li ñu doon fii lu seen travail fi pour génne leen situation bi ngeen nekkee pour génn situation bi ngeen nekkee génn situation bi leen ci génne mooy génn si ñoom génn si ñii wala génne leen fii si réew mi génne leen si bopp réew mi moo leen ci génne. mais bu ñuy wax problème mais bu wax problème mu mbënd ci Sénégal. waaw est-ce que yéen waa PDS bu ngeen si waxee nit ñi dañ leen mën a déglu. dinañ mu déglu parce que li ñu ci def kenn defagu ko. Euh, jusqu'à maintenant li ci def. Mhm. ñun kenn ko ci loolu lu ñu gëm la bu ñu génnoon fi man ak yow je te bu ñu je te défie Abdou Khadre ñu génn fii taxaw baa bi ñu taxaw ne sénégalais Séné ku ñu njëkk daje rek yow ko question nga ko entre Abdoulaye Wade et koo ci yaakaar ni moo ci gën a def dara si ndëm ci mbënd Sénégal bi. d' accord bi euh, Amidou euh, Amidou woon euh, dix milliards yi président Macky Sall def ci li nga xamante ni moom mooy plan Orsec xalaataat yeneen trente milliards lan moo ci sa xalaat. waaw mais xam nga maa ngi doon doon wax kii am na lu ñu pareegul woon sax si bi mu lay toujours ci question inondation yi si ni nga doon milliards. xam nga ab euh, dama la ne Ablaye Wade maa ngi doon wax man la Ablaye Wade mën nañu ko reprocher lu nekk mais kenn du ko reprocher comme culture démocratique ñeme ñeme saytu saytu ak askan bi lu ma def ngeen ñëw saytu ko je me rappelle à l'époque bi ñu defee aussi ñun tamit la le le plan le plan bi ñu doon xeexee contre mbëndi temps ñoom Omar Sarr bii nga xam bi ngay wax tey. Mhm. maa xam naa ñu ñëpp a ngi koy rappelé bi ñu nee il faut que ñu def. un truc euh, il faut que def euh, kii il faut que euh, les ministres mm -hmm. qui son impliqués dans la gestion mhm. ci affaire mbëndi mhm. il faut qu'il vienne devant l'Assemblée nationale mhm. je crois que vous vous rappelez Omar Sarr produit sa mère yaayam dafa gaañu woon à l'époque mais produit produit phytosanitaire yi ñu doon wax ci jaxaay ak yooyu tamit gisoon nañ luubal yi nga xamante ni doon nañ ko si wax waaw non non loolu loolu loolu loolu ci marché yaa ma neexi waaw non loolu laa wax dama ne dama ne loolu ko weddi xam nga lu tax ma koy wet parce que bu doon loolu bu doon loolu ñun dañ ko doon daw pour kii ko pour ñu xam ci dara wala ñu bañ ci wax dara wala ñu bañ ci wax dara mooy li ngay wax avec avec la dame là mooy dame euh, j'ai ay Aïda Ndong mooy li ngay wax bu doon dafa am lu ñu ciy daw wala am na lu ñu ciy kii dama ne Oumar Sarr trois jours après le décès en plein décès de sa mère nga xam ne mu ngi si dëj troisième jour bi la fa jógee la jógee Dagana ñëw pendant kii ba ba ba cinq heures cinq heures du matin toute une journée depuis matin nekk ci kii d'accord d'accord ñuy def audit affaire kii donc li ngay wax boobu ci affaire kii pose nañ ko fa ay question amul lu mu ci kii d'accord léegi nga tontu ci une minute ci dix man xam nga man nee naa la plan Orsec plan Orsec calmant la ci tontu mooy lu gatt laal ci tontu je connais lu kii la lu yomb la calmant la ça pas les choses c'est un problème conjoncturel plan Orsec pour calmer douleur la dafa mel ni bëñ ñu ne la li koy faj mooy wekki rek mais avant loolu nga ne bon xaaral ma wuti paracétamol quand même pour ma faj pour ma kii bëñ bi mu mën ma may. waaw defoon ngeen ko fi ma tëdd nelawut kii. waaw defoon ngeen ko fi. waaw loolu laa wax dama ne plan Orsec. Mhm. loolu laa lay wax tous les plans Orsec bu mu ci mën doon bu Abdoulaye Wade yow bu kii yooyu c'est un plan pour faire face à une situation immédiate léegi léegi li fa nekk rek mais pour pour pour pour pour faj loolu. li nga xam ni mooy la racine du mal. mooy mhm. bal mooy mooy garab bi na nga dem ba ci racine yi li koy faj du plan Orsec. lan moo koy faj c'est ça que je veux dire lan moo koy faj waaw mais li ko li koy faj mooy c'est une c'est une véritable politique d'assainissement li koy faj mooy c'est de vérité de continuer à c'est de continuer à à, à créer des conditions soit yenn yi ñu reloger déloger ñun ci benn tere leen di leen dëkk si yenn zone yi nga xam ni kii di ko xeex di leen ko tere les maires ñu leen di tere ñu leen joxe ñuy ñuy joxe ay kii si yenn zones yi. ñuy fexe aussi di ci def une véritable politique d'assainissement avec euh, ay ay réseaux de drainage. ay canalisations yu mag ay canalisations yu mag yu mel. d'accord d'accord léegi FM euh, ngeen déglu Amidou Wane la euh, nekk ci bokk ci cadre PDS yi ñu wax ci li nga xam ne mooy dialogue politique bi bi nga xamante ni tey mbirum chef de l'opposition ñu ñëw ci point boobu chef de l'opposition yéen waa PDS kenn tuddu leen ci. sa Seck wala ay Ousmane Sonko ak yooyu ñenn ñi sax jàpp nañ ne bu doon assemblée nationale PDS amaana mën na ko mën naa nekk chef de l'opposition mais ñenn si yéen yéen da ngeen ne soxlawu leen ko lan moo ci sa xalaat en tant que cadre. Hmm. waaw yow loo tudd yow réew mi ngeen tudd. waaw réew mi FM. réew mi FM ngeen tudd. waaw est-ce que am na lu ngeen bokk si réew mi bi nga tudd léegi borom réew mi boobu nga tudd. déedéet ah déedéet dara leeru ci la lu ma ci leer. dara leer mën a kii mbaa ni ngay waxee noonu soo waxee ak ces questions yëpp on a l'impression que que da nga xaw da nga da nga jàng sans s'en rendre compte si sa biir waxin. Hmm. tu n'es pas tu ne me sens pas être un journaliste très très équidistant. d'accord waaw bon. Euh, c'était juste une une parenthèse quoi. Mm -hmm. parce que da ngay sànni xeer ma. sànni xeer non non non d'accord naa. waaw mm -hmm. voilà alors chef de l'opposition dafa di loo xam ni beesu fi. Mhm. Abdoulaye Wade moo ko njëkk initié ci Sénégal moo ko constitutionnalisé bi mu koy def à l'époque c'était bi ci à l'époque je crois PS ak PDS ak euh, ak AFP ñoo fi gënoon nekk. kii ma ne kon majorité parlementaire ka la yore majorité au niveau des voix électives PS mu ëppoon voix si élection yi mais ëpp mais kale moo ko ëppoon député AFP donc euh, Abdoulaye Wade initié loi ko bëgg jël kenn si ñoom mu def surtout Ousmane Tanor Dieng la jàppoon moom léegi mais Ousmane tamit euh, waa AFP aussi bañ ne non parce que ñoom ñu ëpp député am ñu Sénégalais aussi yu ne non lii kii def lii waa AFP ñoo ëpp député vraiment ñoom ñoo war nekk. Mhm. ñoom ñoo war nekk. Euh, chef de l'opposition chef de l'opposition parlement mun am jiixi jaaxa wax yu bëri ba xam ni affaire bi xaw. nax nax saa yi noonu. Mhm. ba Ablaye war di génne pouvoir Ablaye bu mu génnee pouvoir nekkatu fi Macky Sall bi mu ñëw mu. kii mhm. mu nuñ koy waxee. mu yeesalaat ko mu yeesalaat ko. Mhm. il a créé un truc il a voulu créer un truc de chef de l'opposition avec euh, euh, euh ko formaliser ko avec même un budget mhm. certain. lan moo si seen position yéen waa PDS. seen position suñ position mooy ñun soxal na. loolu soxla loolu nga bëgg na soxal soxal ñëw pa c'est pas notre c'est de tey du du nekkul si ñun la xam ni du du kaas bu ñu bëgg naan sax ñun soxluñu ko xalaatuñu ko soxluñu ko ñu ci xeex. parce que jàpp ñu ñun jàpp nañu chef de l' opposition par man ab yàq la bi Ablaye bi ab di Macky di sandi opposition bi pour leen pour nax leen parce que am na lu mu bëgg leneen jàpp nañu il est dans une logique d'un troisième mandat mais il faut mu mu normaliser yenn front yi déjà pour doo ëllëg bu demee ba taxaw taxawaay pour taxaw temm pour wax loolu fekk neutraliser nañ leen dootuñu mun wax parce que xam na kii na leen ba pare yóbbu na leen ko kii donc moi je pense que c'est un la deuxième chose deux raisons yooyu ñoo bëgg a def allusion deuxième raison waaw ñu ñi ci ànd ñi ci ànd di xuloo di xeex ak chef de l'opposition ñoo laa loolu laa def allusion je fais allusion à tous ceux qui sont prédisposés à, à se battre pour ça à se tuer pour ça pour peut-être le, le deux milliards ou bien trois milliards yu mu fa def alors trois milliards yi xëy na si mbëndi xëy na si kii am na feneen fu mu xëj am xëj na si coronavirus bi di kii donc bu ñooy dañu nakkal pour askan bi bu ñu jëloon 3 milliards di ko def rek chef de l'opposition parlementaire parce que chef de l'opposition bu doo am Macky Sall la koy joxe. Mhm. kenn di ko joxe ki koy joxe mooy le peuple sénégalais su population yi ñu joxe oppos chef de l'opposition chef de l'opposition mooy ku gën am taxawaay ci biir opposition bi c'est ça la vérité mais ku koy joxe c'est les voix qui la donne c'est le peuple qui la donne. c' est le peuple moo koy joxe loolu lank loolu loolu kay bu naree kii nañu bàyyi peuple bi ko joxe loolu d'accord Hamidou euh, euh, ñenn ñi jàpp nañu ne am na ñu nekk ci kujje gi dañuy dil di waxtaan ak Macky Sall di gisante ak moom di déggante moom euh, information boobu dégg nga ko ci média beeg yëpp lan moo ci sa xalaat ah, am ci mbetteel donc naqarlu sool la comme peuple Sénégal ni muy naqarlu parce que loolu xam nañ ko loolu jàpp nga ne am na tamit loo am na ñun xam nañu loolu depuis xam nañu loolu xam nañu loolu depuis am na ñoomu tuddal fii di ma ne kii di ma ne PDS dañuy gënn PDS wala ñuy dem PDS mais ñun ñun xamoon nañu xamoon nañu seen problème ak Ablaye Wade c' était ça la vérité c' est parce que Ablaye Wade connaît détient Ablaye Wade c' pas n'importe qui quand il fut chef d' état du Sénégal il détient des informations yoo xam ne aw moo ko ko il a il peut toujours avoir des gens yoo xam ni qui peuvent être au sommet de l' état yoo ni qui lui sont fidèles parce que nit ku nekk foo mun jaar rek foo mun jaar ba gili fa dara même boo fa jóge woon dina du ñàkk mu am toujours ñu am ci yow kol benn kóllëre mais bu paasee waa PDS ñeneen ñi nekk si kujje gi. ah ñeneen ñi nekk si kujje je je trouve je considère pour man je considère j'ai dit comme nee naa la Macky Sall jàpp nañu que ñaar calcul la yore defar pour troisième mandat ak pousse élection législative locale yi. Mhm. ni mu pousse élection par parewul dafa bëgg xool situation bu muy fu muy pare ñu pousse ko ba fu muy pare. bu bëggee ngàdd ñëpp mu ngàdd ñu. mais amu leen benn exigence mais amu leen benn exigence que ñu taxaw élection yi ñu bañ koo dàq yéen PDS. ci bu passé wax ji ngeen si wax. non non non non suñu exigence mooy élection yi que ça on a toujours dit que les élections se passent se passent à date issue c'est-à-dire bu ñu te passé deux mille vingt et un. su ko dàqee lu ngeen si man ah mais bu ko bu ko dàqee ñun luñ ci mun mooy xeex ak nu muy xeex ak ànd ak askan bi xeex ak peuple bi. c'est tout. est-ce que pare ngeen pour xeex. ah si nous chaque jour que Dieu fait on a on a on a redémarré ñu activité. tu vas voir ce qui va se passer. ñu redémarré nañu on est reparti on va se remettre maintenant en ordre de bataille. dañ ñu kii yoon dañ ñu dañ suspendu toutes nos activités. à cause du corona on avait suspendu tout le truc mhm. on reprend notre activité même si bu dee am na yenn zone am na yenn côté yoo xam ni le président a toujours dit secrétaire général nee na toujours mhm. na ngeen di kii mais nag na ngeen sóoraale toujours loolu mais yaa ngi wax Macky Sall paréwul euh, paréwul pour euh, organiser élection locale mais est-ce que PDS pare na jamono ji ñun dem ci ay élection locale waaw mais en tout cas en tout cas ñun jàpp nañu mhm. ñun jàpp ñun jàpp nañu moment bu ñu woo si élection ngeen dem ñu dem ci am na ñu ragal ñu ci mais nag lu ñu si gënal mooy nañu fexe ba élection yi bañ ko politiser en fonction pare na wala pare wu ma pouvoir bi fekk pare wu ñu jéem di régler élection yi si seen temps ñoom. d'accord nañ ko régler en respectant le calendrier. waaw mais mais boo gisee euh, dialogue politique bi fichier électoral bi ñu war ko auditer ak point yu bari déggoowuñu est-ce que logiquement jàpp nga ne wala techniquement que deux mille naa am. ah si moi je trouve que élection mënoon na am ma honnêtement moi je trouve que d'ici deux mille vingt mhm. mille vingt un. Mhm. jusqu'à que si les gens voulaient organiser des élections avec la volonté qu'il faut bëgg ko kii nañ ko. ku mhm. mun na mun na ne. parce ni nii ku mhm. ku mun deux milliards trois mille ne dangay créer chef de parti de l'opposition est que depuis bi ñu créé Sénégal ba léegi bi mu kenn léegi est que chef de parti chef de l'opposition musu fi am. du musu fi am d'accord mais dialogue politique euh, di di continuer di changer wala kii euh, régime di changer mais dialogue politique bi lu non non on on est on est dans le dialogue politique on pas dans le dialogue national. Mhm. Ah c'est différent. Mhm. kan moo leen nekkal ci dialogue politique bi. non dialogue politique non c'est le PDS au niveau de mhm. ministère l'intérieur. avec ñan ñu nekk ci PDS ñoo ñoo ngi dem ci dialogue politique bi. waaw mais non dialogue politique bi ñun suñu dialogue politique. mooy le ministre l'intérieur chaque fois bu woote. Hmm. chaque fois bu wootee hmm. on envoie nos représentants lu ñu war défendre défendre ko maintenant le dialogue national on n'est pas là-dedans hmm. voilà mais li li nga xamante ni tey moom la euh, colonel ñaa jiite waaw est-ce que yéen a ngi si dem waaw moom mooy moom mooy li ngay wax colonel ñaa mooy moom lay jiite moom mooy boobu mooy kii bi dialogue politique bi yéen dialogue politique bi yéen ñan ñooy représentant PDS ñu fa ñoo xam ne ñii ñoo fa demal PDS laa la wax dama ne ma ñii si biir PDS non non non dama la ne dialogue politique de tout temps dialogue politique avec le ministre de ministère de l'intérieur de tout temps chaque fois bu ministre de l'intérieur war am yenn ré yenn mais am na réunion yoo xam ne ministre bi du ko fekkee ay dialogue politique la non non non c'est ce que dama ne dë mu la de dama ne bu dee dialogue kii dialogue politique bi ñaa jiite woon au départ euh, général ñaa bi mu ko commencé au départ bi mu ko commencé ba fii on était là on avait on avait envoyé des trucs on avait envoyé on ay yenn kii comme ay ñoom Tafsir Coy dafa boole na leen kii nañu pour ñu dem représenter ji Sénégal. mais demutuñ mais demutuñ bokk ci réunion yi. non non non dama ne euh, actuellement comme dem nañu ba yenn moment yenn circonstances yi seet nañu wala jàpp nañu jàpp nañu ni que li ñu yaakaaroon si dialogue politique bi wala ñu bëggoon mu dexee noonu. sentir nañu ko c'est pas comme ça noonu la ñuy kii. génn génn on a marqué on marque un temps d'arrêt. waaw loolu moo gën a. waaw ah. kay nga expliqué ma lii. waaw d'accord waaw léegi ma euh, kontaanare ok euh, troisième mandat bi lan moo ci sa xalaat ñuy laam-laamee ne Macky Sall mën na koo def non mënuñu ko def moom mënu ko mën na ko forcer waaye na koo def comme ni ngeen ko forcé woon waaye mënu ko def comme ni ngeen ko forcé woon non ñun on n'a jamais forcé ñun jël ñun dans le mandat dans le mandat dans le euh, troisième mandat du président Wade c'était pas c'était une question d'interprétation Abdoulaye Wade et puis je te défie que encore des gens de l'opposition ñi bokkoon ci ñoom à l'époque bi ñu demee ba jël pouvoir ñoom ñoo ñu bëri nañu ne wax dëgg yàlla bu doon yàlla la waxal xam nañu Abdoulaye Wade avait droit au troisième mandat. il est même si est-ce que du même situation bi. non c'est pas la même chose fii fii fii c'est pas la même lu tax lu tax lu tax bokkul. parce que est-ce que du ngeen gêné wu yéen waa PDS bu wax si waxu ñetteelu mandat. non bokkul sax bokkul parce que Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade a trouvé une constitution de 1963 benn constitution la fi fekkoon 1963 constitution bi moo mhm. ko élire en 2000. constitution boobu def ko élire woon pour sept ans. Mhm. bi mu ñëwee toog bi mu ñëwee toog ba deux mille un deux mille deux ou deux mille trois plus ay euh, kii mu organiser waat beneen référendum def beneen constitution c'est cette constitution moom mooy si constitution bu la ñuy élire Macky Sall bii. Mhm. donc donc bi mu defee beneen constitution bi si constitution bi la ñuy élire constitution boobu euh, bi ko éliroon en 63. ci temps Abdou Diouf boobu constitution lañ ko éliroon pour sept ans si constitution boobu li yoon mais est-ce du interprétation li may wax nii tamit. waaw non bokkul parce que loolu laa la wax dama dama la bëgg ne dama la bëgg ne la question la question des limitation de mandat Abdoulaye Wade daf ko réglé woon depuis il avait déjà réglé ça depuis les mandats a deux à cinq à, euh, à deux mandats c'était pas ce n'est plus une question de limitation de mandat moom moom moom moo war Macky Sall parce que Macky Sall sait très bien que la question de limitation mandat a été réglée depuis Ablaye Wade Ablaye Wade a dit personne ne peut plus faire de mandat deux ans de plus de deux de mandat donc moom c'était une question de limitation c'était une question pas de limitation du mandat mais du durée du mandat moom durée bi mhm. moom lay réglé durée bi mooy sept ans cinq ans léegi cinq ans la d'accord voilà réglé na cinq ans bi mhm. et il a dit il a dit nee na que kenn pour nekk président de la République pour ki nekk président la république da ngay nekk président la république pour élec pour euh, pour cinq ans la durée du kii la la la durée du mandat est de cinq ans pour tout Sénégalais qui devient président de la république après mu teg ci ne yokkaat ci ne. nu ne peut faire plus de waaw. mandats consécutifs waaw mais moralement waaw nul ne peut pour pour ñu wax ci loolu dina dina xaw a ñu bari dina xaw a jaaxal non moralement amul PDS le PDS n'a pas de problème d'accord léegi bu président Macky Sall taxawoon na day def troisième mandat lan mooy nekk seen taxawaay yéen waa PDS xanaa xeex ko donc mais yéen est ngeen doole bu ngeen jàkkaarloo mag Sall pour xeex ah waaw mais loolu te depuis gis nañ ni leen di noote waaw waaw waaw loolu loolu rek la noot Abdoulaye Wade mais du man kese bokkuma see ko gën non non non non waaw dama ne ñun moom bu ñu nootee mhm. ci ñun lay gën a feeñ nootaay bi parce que on est le parti le plus représentatif nous sommes la plus grande force de l'opposition mais est-ce que ni mu leen neutraliser moo tax léppam lu muy def ni dafa yomb ci moom non neutraliser wuñu sax c'est pas nous qui l'a neutralisé à mon avis il a il a neutralisé probablement man moi je trouve que c'est le peuple sénégalais qui l'a neutralisé mais pas nous te amu leen si solution waaw non solution bi mooy ñun te yëpp xeex ak peuple bi jéem leen jiite pour nee leen kaay leen ñu dem xeex ko. mais depuis 2012 yéen a ngi xeex te amu leen benn ndam. waaw waaw mais buñ non buñ. combat bu ngeen dem ñu jàggi dóor. waaw du ngeen di man dara. waaw mel ni ko amu leen solution. non am nañ ci solution am nañ ci solution biñ ci am mooy ñun solution bu biñ ci am mooy biñ ciy dem. nañ la ndax askan bi. Mm-hmm. mais nag yow boppoo kese askan bi yow mi di ma poser question bi. Mm-hmm. te nga nga seetaan muy def. Mm-hmm. jaral la nga gën nga kii keneen ak keneen def loolu jaral ko jaral ko mu gën. bu parti du parti bi bu génnoon le parti le PDS. Mmh. wala l' opposition bu génnoon tamit te peuple bi àndu ci dama ñu ànd ak moom tamit du kii. Mmh. te pourtant peuple bi naa ñu ànd na ñu ànd ñu ak lu muy def. d' accord mais nag peuple mu mun naa am. Mmh. mun naa am façon lu muy guverne man naa am ko euh, euh, askan bi moo ragal moo ragal. d' accord peut être comme day tëj. comme day kii comme day exilé. di tëj di exilé di. waaw kooku ñu exilé moom euh, keroog dégg naa ay ndaw yi PDS ne dañuy xeex pour Karim Wade ñëw te yàgg ngeen a xeex pour mu ñëw te amu leen ci solution. lan moo ci sa xalaat. lan moo ci sama xalaat ils ont ils ont bien raison. wax nañ dëgg dañuy dañuy xeex pour kii. mais amu mais mais amuñu du woon. yéen da ngeen a amatul pexe. ci Macky Sall maanaam xeex ko pour jot li nga xamante ni moom ngeen soxla. rapport de force non amul amul rapport de force. amu leen ko waaw je je suis d'accord. je suis d'accord avec le rapport de force tu as raison un rapport de force quand on fait un rapport de force c'est pas seulement un parti politique qui c'est avec le peuple qu'on le fait mmh. je parfaitement d'accord avec toi hein, quand tu c'est un problème de rapport de force mais parce que rapport de force ak Macky Sall du askan loo yore yorewul askan moom mhm. askan bi àndul ak moom de mhm. moom nguuram loo yore alal alal kii loo yore levier de l'État les forces politiques les forces euh, de défense et de sécurité moom lay utiliser maanaam daal lépp li nga xam ni askan bi moom la ko joxoon loolu lay utiliser di xeexee askan bi. d'accord kon ëllëgu Karim Wade ci loxol Macky Sall nekk. lu ëllëg Karim déedéet loxo yàlla. yéen est-ce que taxaw ngeen pour xeex pour mu ñëw. dina ñëw incha allah Macky Sall dans tous les cas dans tout les cas dans tout les cas mënul tere Karim Wade ñëw fi parce que. ils ils appartiennent tous au Sénégal mais Sénégal ne les appartient pas muy moom muy muy Karim Wade. d'accord xam nga. ñoom euh, ñëpp ñoom ñëpp ci Sénégal la ñu bokk mais moomuñu Sénégal. d'accord léegi donc à kulli mhm. ou bien nguuram dina jeex. ou bien dinañ ko xeex tamit dinañ kii. Karim ñëw Karim ñu ou bien dina Sénégal dinañ ko xeex non seulement pour Karim ñu mais Sénégalais nañ ko xeex ngir ni muy doxalee réew mi ndax doxalinam si réew mi. d'accord léegi euh, waxtu wi jeex na une minute. ci campagne agricole bi président Macky Sall commencé tey. lan moo ci sa xalaat wër yenn gox yi kaw lax Fatick xool fu mbay mii toll. waaw ah, man pour man pour man loolu tax ko jóg man pour man saupoudrage politique lay def rek loolu tax ko jóg ma je connais Macky Sall. Macky mhm. Macky Macky Sall lu mu def rek. lépp lu mu def en arrière plan. Mhm. en arrière plan politique moo ko lal yéen a ko jàngal. waaw en arrière ñun jàngal ñu ko dara ñun bu buñ ko jàngaloon. mais Ablaye Wade duñ ko sama élève. waaw waaw waaw dama ne. non loolu élève Ablaye Wade la mais il il, il n'a aucune qualité de Ablaye Wade. Moi, je trouve qu'il n'a aucune qualité de Ablaye il a tous les défauts que Ablaye pas. d'accord jërëjëf Hamidou euh, Wane ñu lay sant di la gërëm. Mm. Mm. Mm-hmm. lan nga tàggoo maa ngi la gërëm. merci Abdou Khadir si invitation bi. Mm-hmm. Euh, c'est une première vraiment ma ñëw fii si. Rewmi FM euh, di gërëm di leen sant li ngeen ma permettre aussi ma waxtaan ñu waxtaan. Mm-hmm. te échanger si lépp li nga xam ni moo. ñoom euh, moo moo mooy mbirum askan bi wala mbirum réew mi tegi politique ci mhm. économie ak lépp quoi jërëjëf Hamidou euh, woon euh, moom lañu ñu invité woon mu bokk ci cadre PDS yi membre comité directeur ci émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15 heures 16 moom Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm